Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf li ci yéenekaay yi ñuy doree ak réew mi quotidien muy xëy ak lëkkaloo diggante Sénégal ak Turquie yéenekaay bi ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay mel na ni kuy layal secteur privé bu Sénégal foofe ca fi nga xamante ne mooy diwaanub Turquie ci kanamu naataangoom bi di Recep Tayyip Erdogan moom président fay wax na ci lu jëm ci agro industrie ba ci sax énergie lépp waxtaane nañ ko ak li nga xamante ne moom la ci namm def 24 heures duppee ko ay priorité yi nga xamante ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay daal dina koy fësal ni ki démb ci kanamu Turquie ak li nga xamante ne moom la ciy xaar ni ndimbal war tukkee ci Turquie ci boppam ba ci sax secteur privé am li moo tax Le Soleil yéenekaay gis ni Sénégal ak Turquie moom diggante bi ratax na lool li koy firnde mooy tukki bi nga xamante ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay mu ngi koy amal ca Ankara li mu ca jëlee nag bokk na ci ñeent ni ay accord yi nga xamante ne xaatim nañ ko ngir lëkkaloo ñu war yi ci ab conseil stratégique de haut niveau bi nga xamante ne kon mooy caytu lépp lu jëm ci lëkkaloo yooyee ñaari dëkk yi tamit bëgg a yokk li nga xamante moom mooy seen jokkalante ci wàllub njënd ak njaay ba ci benn milliard de dollars waa Turquie tamit noppi nañu ngir dugal seen loxo ci vision Sénégal 2050 bi nga xamante ne lépp lu jëm ci ay projet daal ne ñu ànd nañ ci ca jamono jooje sàmm sa kàddu moom mel ni ku àndul ak li nga xamante ne mooy doxalinu nguur gi rawatina ci wàllu bor bi les échos di fësal taxawaayu Barthélémy Dias ak ñi mu àndal ñuy ŋàññi bu baax doxalinu kii di Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko noonee la ko Walf Quotidien fësal tamit lu jëm ci wàllu bor bi ba ci sax njeexitalu subvention bi nga xamante ne nguur gi ci la jëm recette fiscale yi ak douanière yi mu mel ni sàmm sa kàddu nee ñu fu ñu jëm daal neexul benn yoon kàddu yi ñu yëkkatee ci campagne bi ci diwaanub Kolda ni ki démb campagne bi ci boppam di wëyi waaye lu des bëreetul Sud Quotidien di fàttali ni ñaar ci ay bis képp muy fukki fan ak juróom moo dese ñi nga xamante ne ñoom ñooy candidat yi ci xëccoo bi ci ay bis yu njëkk yi bu fekkante ne ñii ay caravane la ñu tàmmu ñeneen ñi ay porte à porte mu mel ni mobilisation bi dafa am fi mu féete direct news di ko dëggal ne Ousmane Sonko ak amadu Ba ñooy ñi ci gën a fës muy ñaari tête de liste yi nga xamante ne ñoom ñooy riir ak mbooloo mu mel ni libéraux yi ak yeneen parti ak coalition jamono ji nu li ni mel ci kanamu mbooloo mi ko toppoon amadu Ba ci source a di attaqué nguurub Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye rawatina ci lu jëm ci wàllu ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ca Bakel ko wër te mbënn mi sonal leen wit ca jamono jooje Ousmane Sonko di wane boppam ci bët saalumu réew mi ndax yor-yor bi nee ñu gannaaw ba mu tojee Saalum moom jiital Pastef ca Kolda Sikicoor ak li ko wër mu mel ni premier ministre wane na ni moo fay buur di bu mi tontuwaale sax opposition ba ci Amadou Ba diggante Sonko ak Amadou Ba defante gi métti lool lu quotidien yéene kaay duppee ko débat à distance di fësal kàddu njiital coalition jàmm ak njëriñ Amadou bu nekk Sonko mel ni ku koy tontu ne bu fekkee loolu la bëgg mën nañ ko organiser ni ñu organiser list yi jëm ci élection législative yi enquête ci la dikk yéene kaay bi li mu gis moo di ni soxna yi moom fës nañ ci lool dikk na ci sax ak nataal ñenn ñi nga xamante ne kon ràññee nañ leen ci campagne bi ku ci mel ni Maimouna Bousso Anta Babacar Ngom Oulimata Baro ba ci Thérèse Faye ñi nga xamante ne fës nañu lool ci campagne bi Rokhaya Camara Aïssata Tall Sall Ndeye Saliou Diop Dieng ñoom ay jëwriñ mu surveillance ci boppam moom la ñuy incarné jamono ji jamono ji beneen polémique daa di juddu gannaaw lancement première phase bu grand projet de l'eau laas yéenekaay di ñu xamal ni polémique juddu na ci tànneef bi nga xamante ne def nañ ko Sinohydro li ñu tànn entreprise bi lee tax na ba njiital forum civil di artu l'info yéenekaay gis ni coow jibati na diggante ministère bi nga xamante ne Cheikh Tidiane Dieye moo ko jiite ak Birahim sekk ci boppam Youssou Ndour ci boppam Seck waxtaan wu yaa ak suñu naataango yu l'observateur super étoile dikk na ci tournée européenne am bu mujj Fatou ki nga xamante ne moom mooy tour manager bu super étoile wàllub groupe Futur Média ba ci li nga xamante ne moom mooy tekk tekkaaral gi ñu nemmee ko ci moom ci wàllu politique gi ci biir réew mi ci bopp CNG lamb Rewmi Sport dañu yëgal ni Malick Ngom moom lañ fa tabb léegi muy njiit lu yees li mandat benn at lañ ko daal di sas jamono ji te bu ko weesoo du mën a xëccoowaat ngir jiite kuréel gile diggante Manchester United ak Chelsea gile jongante war naa tàng lool ni ki tey ji record yéenekaay di